sant laa sant baay laay sant laa daa gën a wóor baay Abdoulaay sant laay sant Seyde sant laa daa gën a wóor sant laay sant Maam Njoon sant santaka daa gën a wóor Abdoulaye sant la mooy sant baay laay sant la daa gën a wóor kon la Abdoulaye sunu cofeel gi rëy na nan la bay yagaayoo sunu cofeel gi rëy naa asalaamualeykum waa adduna bi asalaamualeykum mbokki Sénégal boo leen diggee baat bi mooy cant gi ñëw na kañ la cant gi le premier mars 2020 ca Yoff waa ana ñu koy def waa ahlu kiram ana ñooy waa ahlu kiram ah seen responsable moral di maam Alsaan bàyyi yàlla fi yàgg moom te gën a yor ahlu kiram yépp ñoom ñoo woote ca Yoff ngir rek amee lu cant ak Sëriñ Abdoulaye ci li mu liggéeyal lislaam li mu liggéeyal liggéeyal diine ji di ko ñaanal ba Abdoulaye yàlla na yàgg te gën a wér. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.